xam nga dafa politique. non wax deug yàlla depuis 2 ans bokuma ci parti. politique waaw mais non non non non non ça pose problème. Euh, <laughs> wax nga fi. Légui nak fo jaar mu jakarlo ci mal rek la non dernier jakarlo. Charles Charles dernier jakarlo da nga ne. Uh-huh, dootul matati 1 mois ñu xam fan nga fété ya ko fi wax. non non légui les bandes sont là dootul matati 1 mois musuma ko wax dama ni. pour ces élections présidentielles. dinañ egg fo xam ni dinaa ni man candidat bi lay jappalé. musuma wax dootul matati un mois négocier ba léegi. loolu non non pour mu leer xamna ni esprit pour am chaleur nga c'est juste c'est juste pour dire mais c'est juste pour dire que depuis depuis deux ans depuis deux ans je ne suis pas je suis pas dans la partisanerie baal ma les politiques. wax la parti politique ngi observer quand j'observe mhm. je te dis le sénégalais que je suis rek di observer problème am majorité bi am problème dafa am leneen lu ma ci seetlu loo xam dama gis ni ci seetlu yi aussi ñu ci baaraam et ça dafa am problème bu muy indi xam nga gouvernement dafa am orthodoxie boo xamante ni noonu la république di doxe man dama mon frère Yankoba Diatara mu dem ci Idrissa Seck ni Idrissa pour être en cohérence avec la décision politique je je veux démissionner ci poste bi nga xam ni moom mm-hmm loolu Sara pour que xam république ak orthodoxie républicaine ça cause problème de l'histoire des partis politiques yi àndandoo booloo di dans un gouvernement qui ne joxe sa quota Qu'est-ce que je veux certes un parti politique si ñu dans une coalition peut proposer mais dans notre nomenclature constitution bi nga le premier ministre propose le chef de l'État moom moi, nommé

bul fàttali ni par exemple Macky Sall xëy rek xool Yankhoba Diattara Ka def ministre. Mhm. non parti la waxtaanal ba ñu ànd chef de parti bi proposé ko maintenant mën na mënoon nañ ko proposé président Macky Sall bañ mooy fal. mais moom ba muy démissionné waxul te bu demandé à Idriss Seck man kat. Ah. parti bi ma bokkoon moo proposé ma dem bokk ci gouvernement est-ce que maa ngi dem pour bàyyi ji.

parti socialiste la bokk. mais ma ñom ñu and bokk pouvoir présidentiel. légui nag grand fi may daaneel. dem dem ci sa chef de parti. waaw waxtaan ak mom en sourdine ni ko man dama bëgg a démissionner. loolu man dàquma entre ay nit yu liggéey yu bokk parti. mais dama ni ci orthodoxie républicaine sénégalais yi ñoo ñu seetaan nga teg presse nga génn wané ni da nga doon démissionner mun j'étais reconduit man par exemple tel que je connais le

Qui ministre président bi président de la république parce que l'institution, un ministre de la république se permet quels que soient ses problèmes internes qui partent, de devant la presse pour dire que j'ai remis ma décision un état doit rester fort je suis d'accord parce que aujourd'hui, si je suis président de la république je am incarné. incarner moy fermeté moy discipline su la falee ministre nga génn ci biti presse bi kii la nga ne man damay démissionné guddi gi doo nekk ministre. baax décret bi foofu lay. kii c'est ça badara Badara fi d'accord ma yow. mais mais non mais mais fi ma d'accord yow. Uh-huh. effectivement. di nga convaincre bi nga ma ne. mënoon dem ci suuf. c'est ça manam tu peux pas mettre la presse non non non loolu. on est en face donc loolu d'accord naa foofu parce que yow comme par exemple tay il y a des discussions à l'interne. ba ñu ma tàggu bi ba ñu ma tàggu bi mais effectivement maa ngi il y a des discussions à la télévision génn ci télévision. waaw mun naa la togal ak déglu c'est ça manam orthodoxie républicaine orthodoxie républicaine dama lay wax xam république dafa gën haay xaay. Pape Cheikh mi dama koy sétane ndeysaan. nga koy suivre de par son élégance dans l'émission ce qu'il faut dire en off et en on souligner ñi muy veux même je veux dire dans l'orthodoxie républicaine mais <laughs> non <laughs> non ma non non non je veux dire le baye ngeen show time rek <laughs> non d'accord non. rek signaler parce que aussi le parti

wala fi président wala fi Amadou bu fa Idrissa mu tok un ministre bu nek ci gouvernement <laughs> nga dem tenir discours bobu doto siéger ci gouvernement li tax ma signaler ko rek fa orthodoxie républicaine bobu affaire parti avant la patrie transition bi y a des négociations dans la majorité yu am.

non provocation boobu man comprendre nak xamul waaw mais donc. est-ce que man dire wax lan erreur li bu uh-huh. xam nga boné ba ya gëna a ñepp ci réew. da ngay dem ba nek sax vous du ki dof ci réew. les limi chercher mais fi victime mënu ci am. demay la am réew mo dem ñaari am hmm kay ci nguur gi ak opposition.

ñoom Badara ci jakarlo bi kon mom paré na fa lan moko fa déssé pour mu dem lan moo tax man la lan moo tax mu tok ak lan moko fa téye moy fi ngay ñëw xam dafa am fu luma laal sank ni vous me permettrez aussi man ma am réserve bo xam dina ko am pour que par rapport ak yeen di ngeen mëna a ndax y a des relations aussi yu gëna a yo yoo xam ni c'est entre famille té àdduna lu nek dafa mata a mais li ngay wax ni kuy jàngat kuy jàngat kuy jàngat fay jàngat ni euh, amna ci lo xam même dans la république ci république bi. loolu mi ngi koy laal non non non bo le naré ñëw fi nan ay affaireu famille.